si téeméer ak ñaar fukki ak ñaari test juróom ñoo si positif juróom yi ñaari cas importé la ñett yi cas cote yuñ doon suivre ma leen di yëgal dem ne tey ba su tey bi fukki patient yu doon faju wér nañ danañ leen génn tout ñu yëgal ne malade yi nekk ci hôpital yi faju seen yaram mi ngi yëg tan bu ñu xaymee tey ba ñu commencé ak léegi am nañ téeméer ak juróom ñeent fukk fii ci Sénégal juróom ak juróom wér nañ kenn ki mooy suñu mbokk Pape Diouf bi suñu borom jëlee ak benn cas bu ñu évaluer bu ñu évacuer may yëgal ne fi mu nekk nii téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk si hôpital di faju ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi leen di demander ngeen continuer di respecter consigne li leen jox pour que xeex bi ak coronavirus bi ñu mën koo